asalaamaaleykum mbokk yi faral di ñu teewlu ci de DKR 221 comme ni ñu leen koy euh, defalee saa su ne rek di dikk ak yéen euh, ci ay xibaar yu wér te xibaar bi nag du lenn lu dul euh, Sénégal dafa daal di rek amaat ñaareelu doomu aadama maanaam ñaareelu nit boo xam ne rek ñàkk na bakkanam ci li nga xam ne nii moom moo di mbas mi dugg fii ci biir réew mi te sonal àdduna wërngal këpp ñu ngi xamal ni kooku sax moom jigéen la mi ngi am ëpp juróom fukki at mi ngi nag faatoo fële nga xam ne moom moo di ci hôpital bu Fann fa nga xamee ni woon foofee lañu ko dencoon moom nag ginnaaw bi nga xamee ni rek kii di Pape Diouf daal dinay ñàkk bakkanam ci nit ku njëkk fii ci Sénégal keneen ki ci topp moom ñu leen di xamal ne rek jigéen la mi ngi nag faatoo ci hôpital bu Fann xibaar yi ñu ngi ko jox jot léegi moo tax ñu ne na ñu leen ko baaxee waral ba ñu leen di jox jig daje ngir rek di leen toppal yooyu la xibaar lépp luñ ci am ñu indil leen ko jërë ngeen jëf mbokk yi ci déglu bi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 pare leen man waaju baax maa ngi foofu yéen célibataire tey ngeen dee am ngeen lu xamal xam ngeen li ma leen wax eh DKR 221 abonné